biir succès ak 2MD bi tey rek ñu sama gars doo leen rate dara jël leen seen temps ñu dugg ci waxtaani xoolal leen lu leen leen dagale parce que yéen ci ñun ci leen nekk rek la ñuy mais sama robe lan la dëgg la maa ngi nii Suisse création daal moo fi jaar dëgg neexul bi nga xam te ni mu nga sol maa ne jaar ci ongle ne ma umu yow yaay sama doom lay dama ciy jàpp nee naa ne ñun rek. <laughs> fu leen ñu ngi ñëw dal seen kaw dañ dugg ci biir xool xale yi xool sañ-sañ yi xool xale yi lu ñu saaj à tout moment mën naa fëgg sama dënn sama njëkk léegi def Kumba Gawlo li nga def ci aar bi gaay yi gis nañ ko aca ñu dem la diva dañu war a fecc faama tey ma ambiance ko princesse king bi ñëw na dañu war a fecc sama ambiance daa bokk ak seen ambiance waaye da nga weddi kaay fii xool li ma génnati pourtant sax dama ko jëlee naturellement du ma force kat du ma dundee yëfu jàmbur moom moo visage bokk bi ay bu junne soxlaa Dakar ku yëgaano bu bagay mbay soxlaa micro ku yóbbu waajal toog bu fële dañu war a fecc tey ko doomu day Pagaye Mbaye jërë kenn dootu ko présenté ci réew mi doomu nday Thierno Ndong Ba ku ko xamul dégg nga ko waaw sa sañ lan la sama mag gi nuyu naa la ziyaara ci loo ne waaw rakk ci kontaan naa macha allah su la gisee c'est un plaisir énorme <laughs> macha allah sama mag gi sañ nga def sa rouge nii tas yaakaar bu la bi laar rouge waaw lii la la tamit waaw ñoo jàppale sama rakk Pagaye muy première muy ñëw fii kon normal na waa Pikine yëpp ñëw Sadio jàppale ko ndax xale bu baax na doog a ci mbir ba ci CSR xale bu am jom la ci jom rek lay dox kon nag su tëggee foog ay magam ñëw jàppale ko. tey ñu gis da nga déplacé wu ñëw fii Pagaye ko Dogo woote si sees macha allah ñu gis ñëpp génn ñëpp ñëw tey diggante sa diggante ak Pagaye Mbaye ak pourquoi si sees tey si sees tey nan la nar a yëngoo lii laal la. waaw lii dañ ko namoon si sees parce que artistes yi dañu taamu woon Sorano. grand théâtre ñëwee ñuy bàyyi Sorano dem grand théâtre te Cissesse dafa nekk ci xolu Dakar accessible na boo jógee Pikine 10 minutes yaa ngi Cissesse Ouest Foire da jéggi ñëw Médina 10 minutes yaa ngi fii te bokk na ci salle yi gën a ëpp sécurité ci Sénégal parce que dafa dend ak gendarmerie bi donc pagaay bu fi ñëwee tey war na fi ñëw et puis doomu banlieue la ñun ñëpp ay doomu banlieue la ñu juddoo ñun màggee ay Pikine Guédiawaye miin banlieue bi donc pagaay bu wootee dañu war a ñëw jàppale ko non seulement ñëw jàppale ko en tant que ci nit ku baax nit ku am kóllëre nit ku nite ku yëg nit yëgul succès bi mu am te pourtant bu ko neexoon yëg ko ndax dem na fu ne ci àdduna en tant que xale bi muy nekk xale pagaay wër na àdduna yëpp bi muy nekk xale te boo ko gisee doo ko foogee. def yi fi géwël xam nga ñun ay cosaan dégg na polman nga laal def sa zone mu tàdd macha allah ñu gis la tey nga déplacé wu ñëw fii ci Cissé Pagaye woote dogo Fadima Odior nga ñëw def déplacement ak dérangement def set lu rëy nag. woote yëpp géwél def sañse da ngaa sañse képp ku fi jaar yàgg na sañse bàyyi nga. waaw rek moo tax ma def ni def sama palmaan ci kaw ndax ni nga ko waxee rek dogo Fadima Odior Kumba Samba yaay janoo sama rakk ji moo xew Pikine sama rakk ju bax sama rakk ju yar sama rakk ju respect respecté mo aadama ba pare mën na lii def mo xew mo tax ma def def yi fi géewul ibi armoire ñu wat ma jël ko def wa ku waral ciowli ciowli ciowli ki waral coow ni ma sha allah dogo fali ma maawo jor kumba ma yaay janoo dogu mi ci mbergoon liñ doon waaj ay at diko waaj ay wer diko waaj ay bis tay bis bi ñëw na dogo ma maawo jor sama papa ci lo nek sama dom ji umu ñaar papa nuyu naa la ziar la wa mais fayna la wa mais sa sa lan la non dama dama dama am armoire bi rek mu war dama daal sol. macha allah Pagaye Mbaye woote si ses buntu beeg biir salle bi lépp fees dell ñu naan lii la la lii la la mais dogo lii lan la. waaw maa ngi maa ngi sant yàlla bu baax ah donc di delloo lépp doomu aadama yi rek c'est parce que c'est pas facile nga woote mu demee nii donc ñu ngi ñi ngi ci am contentement bu baax a baax mais di ko delloowaat doomu adama yi rek di wax ne aw ma seen fay vraiment. mais sama diggante ak moom moom donc jàpp naa ne lu am commencement la mais amul fu lan lañ mën a xaar ci biir ambiance Dogo Faly Mawo Dior lu ñu a xaar ci biir tey. loolu kenn waxatu ko ndax Dogo saa yu yegsee day doole tey moom lu mu laaj dañ koy def li ma naan bu ko jaree dañ koy def tey bis bi lu mu laaj dañ koy def incha allah. macha allah nee naa leen tey fii dafa ala fii dafa neex ku gis nen ne ne ngi nii kii nag kenn dootu ko présenté kii sama papa ji kii mooy damitu Dogo Faly Mawo Dior Kumba Samba yaa jëloo waaye namu naa la. billaay Dogo bu mag bi bu wootee Dogo yu mag yëppay ñëw may kontaan nag ci jàkkaarloog yéen ndax bu jine soxla Dakar ku yëg daan waye pagay bu soxla dam sen ku yebu sex sex titi mbaa bi borom tak sa baba tëdam tëri waye ñak ak saxaat duñu benn ku weddi bi ne garal mais ñànkatang fu mu làqatoo di jëw sos ko toog ko sori dugg ci kër ñu pes la nga ni merci du dégg xol bu jeex la aka leer wa dam sa sañ sa la ah, dama laa bëgg man dama laa bëgg arandre de la sol arandre dama ko luye <laughs> gisoo lu mu ëppee di buubu luye dama ko luwee mais dafa am benn tendance bu xam nga yow da ngay taasu ku la xam-xam ci man kebatu taasu jigéen ñi ko def booy jigéen ñi. mais gars yi nee nañu dafa war a nooy day woon. nee na taasu dafa war a ñàkk mais man nangu naan taasu dafa yow jigéen nga moo tax jigéen jigéen nga yow jigéen nga bu la bu la neexee mu nooy mais booy ñàkk jom yi naan ay taasu day nooy ñàkk ngeen jom wuti leen loo leen def da ngeen réglé nekk ay nit booy da ngeen yabaate doo leen fekk nit ñu teg ci affaire mu tengal leen a ah, ngeen fekk ko fii ñëw seen leeraay ak ak seen tuñ xonk ak waaye voilà ñëw naa te taasu moom pour mu a xanaa ma dee mais yéen booy seen affaire yu ñàkk fayda man may taxaw duma leen ba ngeen tëdd xam naa na maa ngi leen mayet bés ndax léegi ngeen gën a di wax ñi yee ma tooñ waaye bu doon woon ñii yéen du ma sax si yéen ndax man man seen morom man booy dem leen ngeen concurrence ak ña ngeen tollal doole man maa leen mën maa leen ëpp doole xaw jiw moo ci yéen yërëm leen nag jéggale ndax cuuj day xam lekkam. booy te ngeen yaru te booy li ma jaaxoo la ay benn wax la ñuy wax ñoom cinquante mille personnes. bu ko man yëpp génn wàll gépp benn wax la ñuy wax booy booy man samay feem laa yor de. man yàlla ma fal ma ànd ak benn ñu xool yaa ñoom ma lay may diis yàllaa ma ma ànd ak daal ba toog ci laal ku may jéem a kal maa lay gal gal doo ko tal man maa mën a door bal te du ma ko jal tàng ne xal. xoolal boo honnêté da nga jéem a honnête boo ñu togal am lañ ko tok saket boko ko lepp net de ñu woo bi net ñu yenu ñu bu ko maket jox ko honnête honnête invité amet fet ñu na net jox ko crevette brochette ko raket ñu ko toali mu sax ba set gem di wodi net yo nga nenn yet woo de servir sol likat la moket gaddu ba set sol kaskat sol ay coquette koket fu set di jàpp bu len ba xam nga ni kenn du yow ci réew booy fu ñu mëne li jënd nañ patak organisé ma ne moom père gis nga li def ma yaa ko dóor fer ba tax mu àgg teer moom père yaay seer mi ngi ñuy gedd waaye ma mère déclaré saako xeer koro mën na ko xaaj ba ci Moussa la maire te bul fàtte Rose la maire nga naan sa somnifère yeewu daal leer nii laa fi defan dem kër commissaire jaay ko jikkoo seer dem solo ko corsaire yooyu mu tafak sa seer xanaa yaay seer waaw allah ñu ngi ne ci biir salle bi dëgg neexul nee naa macha allah xale yaa ngi sëñ si xale yaa fii daal tey ma jàkkaarloo koo xam ne kenn ah muy Zal make-up Zal ci loo nekk. waaw Zal li nga sañ sa lan. mais bëgg naa a a ñëw pour bëggal leen benn fii ci bis bu doog a faali maa jot. ni nga xam diggante Zal ak Pagaye Mbaye. wala Pagaye sama diggante nit ku baax la. paa bi paa bi ñu ko lañ koy wax paa bi moom bu añee sax xoolal du raxasoo si biir këram day toog ci mbedd mi gars yi dañoo jël ma raxas ma raxasoo si xanaa di toog woo dañ kumpa mais paa bi yàlla natt ko mu julli cinq ba pare si dañ kumpaam jël seize heures toog ci biir bi waaw bokk na jéeri ci nii

gars yi moom lii moo ma ko jox bu jógee voyage bu bi ma sol moo tax tey ma solal ko ko tey bi ñëw parce que xam na ne am naa ko ma ko aussi mais dafa def geste bu nice voilà jógee voyage ñëw ma doon ñëw vraiment dafa nekk euh, artiste boo xamante ne dafa spécial Becaye tànkam ci dara Becaye lu mu def boole ñu ci surtout sama jumeau bi nga xam ne moom muy parrain bi daa bëgg Omar moom bëgg bëgg ma bëgg Omar. ki mooy Omar ki nga xamante ne allah lu Pagaye sañse moo ko ñawal diggante mag Pagaye ñëpp xam nañ ko. su wootee lu mel nii teew rek a war képp ku ma xam tamit dina sama ginnaaw dafa war a ànd ak man. da koy yëngal baay bas da koy yëngal baay Mamour Diéré da koy yëngal baay bas da koy yëngal sigal ma sa jàkk ma jàkk may sa joor ñu arrêté musique maa ngi jégalu dama bëgg salle bi yëpp tàccul ma pagaay mbay ngir yàlla ak yonent bi sama xol daa sedd li ma def nii sax du yoon gars maa ngi jégalu ay seen mouchoir weex na salle bi weex oh na lépp di weex na saal bi weex Fatou Mbaye nil Fatou Mbaye yu bee bee faal yes ay Fatou Mbaye Aïcha Fatou Mbaye liggéey na saal bi weex oh seen mouchoir sol bi weex Fatou Mbaye ay Shadi na ma neex nel le dikke lo vegay nel Fatou Mbaye ya yube me fa ay one two three four rarak sagin kin bace kay Fatou Mbaye fekk di dara dara dara di dara kadas modas kadas modas di dagi dagi dagi di di rew rew di jër ay la flash si dàq ma ñëw te kaw te kaw la flash si dàq ma ñëw ana flash yi fadel na flash si dàq ma ñëw fii rek la gaay ci suuf démb na flash eh, si dàq ma ñëw na flash si dàq ci kaw na flash si dàq ma ñëw na flash si dàq eh, ci kaw na flash si dàq ma ñëw na flash si dàq gaay one two three four rek ci digg ba ceeb titin pojok Gai Cuklit Dijaga raja kejar gijar Tokokai Kedas, madas, kedas, madas Gijar, gijar, gijar, gijar Lubes, parira Ganang Oh Oh Barira oh. Aisyah parira oh. Nalfa Dumai Parira Digalong parira ay way fa parira fadal oh oh fii rek la oh nel ba parira bas na fa génn fecc bu bees hey bés dafa génne daas ku bees su ma ne sin musuwaar jër gi cekkit cekkit cekkit wre wre ci jër ñu biiju biijul ay tiis gin gin gara sin musuwaar jër gi cekkit cekkit cekkit Ura, ura, titar. Nu vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo, vídeo. Fadal, também dugi, vai, vai, dugi. Ei, sen loxo ca kaw, gumba cece. candidat borom Gambia daa yegsil daw Gambia lii moo neex feccal lii nee leen daw Gambia Fatou đầu. daw Gambia bagay one two three four ana ndaw Go, come on, Rome, go. Go, do a little bit. Get down, come on